ku siiw yéen a ku siiwal dëgg la ku yàqu yéen a ku yàq dëgg la

bokkoon na ci ñett ñi muy kan première da Marième Faye Sall yaa Awa Dieye animatrice foofu ca euh, TFM ak kii di Macky Sall ginnaaw loolu nag am na ay rumeur yu bare yoo xamante ni génnoon na ci ba ñu bare sax dem bay jinni que ni président Macky Sall mii sax dafa am relation boo xamante ni am na ak kii di Yaa Awa Dieye ba noppi sax am na ñu demoon ba inventé créer ay fake news xamal ni que sax Marème fay sal gisante na ak Yaawa ba ñoom ñaar xeex nañu ba Marème fay sal si boppam dafa fay génn na këram ñun nag si journal People journal d'investigation defal nañ leen benn enquête ubbiwaat enquête bi xuus ci question yi ndaxte nee nañ ñun balaa ñuy wax dañ ciy am lu ñu leer xamante ni ñu ngi ko doon wax ci diggante relation triangulaire boobu dara amu ci lu dul ay fake news foogoon nañu pare nañ ci nag mais dañuy gis fan yi ñu génn ñu koy gën a alimenté ci réseaux sociaux yi du kenn ku dul opposition bi ñoom ñoo koy utiliser uniquement pour xeexee ko le président Macky Sall je crois que ci ay débat d'idées lañ leen di xaar mais pas ci ay sos wala ay inventer yoo xamante ni dara taxawu ci parce que tey jii mën nañ leen xamal ni que lépp loo xamante ni pesé woon na pour le contre avant et de lancer cet exercice de rétablissement et de la vérité et de la, matérialité des faits en ce qui concerne le ramassis des rumeurs d'intox autour d'une prétendue relation tri triangulaire entre Macky Sall, Mariam Faisal et Ya Awadje, animatrice à la TFM, complètement d'enquête en trois points. ginnaaw bañ ñu leen defalee suñu enquête ci trois points xool nañu loolu yëpp lan la demoon nañu ba inventé ci benn takku suuf bi nga xamante ni kii di Macky Sall defoon na ko ak Yaa Awa Dieye dara lu dul fake news su ngeen déggee fake news mooy loo xamante ni dara sotu ci dara du ci dëgg lépp ay kàcc kese la mëstaam ndaxte kii di Macky Sall musul gis Yaa Awa musul taxaw ak Yaa seetaan ko ci télé sax musu ko seetaan ci télé bay xamanteeg moom muy beneen boo xamante ni indil nañ leen ko ndaxte moom day seetaan télé souvent journal lay seetaan su seetaanee RTS xëy na yenn télé privé lay mais mosul seetaan ay émission lucrative sax ba koy gis ci télé donc muy première fake news boo xamante ni rumeur la woon ñu ngi ko doon circuler di ko wax tey nag indil naa leen ci information bu leer kii di Macky Sall ak Yaa Awa xamante wuñu ci A xamante wuñu ci B ginnaaw rumeur yooyu ba mu commencé circuler demoon nañ nag ba inventé ci sax takku suuf takku suuf boobu nag jàppale ni que dara amu ci ndaxte balaa ngay takk takku ni suuf sax dafay fekk nga xam ko deuxième bi newoon nañu Marème Faye Sall aurait quitté le domicile conjugal pour s'offusquer d'un takku suuf que son mari aurait fait avec la charmante présentatrice de la TFM Ya a Dieye muy beneen fake news il n'en est rien d'après les informations yoo xamante ni man mii gëstu naa ko xool ko muy une grosse intox boo xamante ni dañ ko indi muy calomnie boo xamante ni defuñu ko dara lu dul teg ko ci kaw Macky sal ak jabaram bii di Marème Faye Sall bi nga xamante ni depuis boobu ba tey ñi ngi dëkk foofu ca Mermoz quant à palais présidentiel nag du dara lu dul lieu de travail maanaam seen bureau dong la mais ñoom ci Mermoz bii la ñu dëkk Marème Faye Sall musul génn këram Marème Faye Sall musul gisanteeg yaawa xamul sax kuy yaawa musul dajeeg yaawa donc jàppale ni que loolu yëpp ay fake news la comme ni ma leen ko waxee ñi ñëwaat encore ñu ne Marème Faye Sall dafa rencontré woon wooy Yaa Awa jàppale ni que Marème Faye Sall ak Yaa Awa musuñu gisee musuñu daje ñi tegaat ci Marème Faye Sall s'est battue avec la présentatrice de la TFM Yaa Awa Dieye encore muy beneen grand caniculaire people boo xamante ni ñan ñoo ko relayé certains médias ñoom ñoo ko bindoon juste lan la ñu bëggoon en quête de monétisation pour monétiser seen ay chaîne Google ak seen chaîne YouTube pour am tuuti xaalis wala tuuti am vie tout pas très connu maanaam ñoo xamante ne ñoo doon ay sites yoo xamante ne kenn xamu ko donc pour ñu monétiser ko pour Google mën leen rechercher moo taxoon ñuy doon binde yenn genre information yi di xamal ni ni que que Marième Faye dafa doon xeex ak Yaa Awa ba tax na ni dégg na takku suuf jël na ay bagages am fay na génn na dara du ci dëgg lépp fake news la dara musu ci am toujours su ma demee ba tey ñëwaat si samay enquête ñëwaat nañu fii ñu ne Marième Faye Sall est quand une des grandes dames une femme du président depuis sept ans qui ne va pas se rabaisser à ce niveau. C'est une pure légende. Selon les informations que nous avons, en effet, Marem sal n'a jamais rencontre Yawa après les investigations. Biñ defee suñuy investigation gis nañu kii di Marem Faisal musul dajeeg Yawa xamul kuy Yawa musul gis Yawa donc loolu yëpp ay fake news la Yawa nag su ngeen jàppee jamono jooju ñu ngi wax kan moo ko doon courtiser am na benn sëriñ bu mag boo xamante ni mi ngi ko doon courtiser sëriñ boobu nag proche kii la ki nga xamante ni muy homme d'affaires milliardaire boobu di Yérim Sow demoon nañ sax ba ne Macky Sall moo ko jëlal appartement ville kenn jëlalu ko woon appartement ville lu dul ku mu doon génnal jamono jooju muy proche Yérim Sow di milliardaire boobu moom moo ko jël jëlaloon appartement boobu nga xamante ni nee nañu un million la doon fay foofu ca maanaam ca centre la nekkoon toujours alors que la presse people lui avait sorti une idylle avec Yérim Sow himself te balaa loolu sax newoon nañu da doon génn ak Yérim Sow alors que ki mu doon génnal sax du Yérim Sow benn proche Yérim Sow tout simplement la kooku moo ko jëloon appartement ba foofa ca ville souvent nag mooy li ñuy wax rek entre sénégalais yi suñu célébrer souvent di génn ak yenn genre homme yu riche yi souvent ñoom si seen bopp ñoom ñooy inventé damay génn ak diw damay génn pour keneen ki nar a ñëw ci ñoom xam ne que ñoom ñi kat dañu am grade dañu yëkkat seen doole ci wàllu relation triangulaire bi nga xamante ni ñi ngi ko doon wax ci diggante Marème Faye Sall Macky sal ak Yaawa daara amu ci ay fake news la kii di président Macky Sall musul gis Yaawa xamul kuy Yaawa dégg la am ci moom te mi ngi ko commencé woon dégg sax ci rumeur yi bu mu génne kii di Marème Faye musul génn këram musu fa jógee du nekk ak jëkkëram depuis jamono jooju ba tey ji muy rabaissé wu ci affaire yi muy ay fake news yoo xamante ni toujours côté opposition bi côté ennemi yi ñoom ñoo koy utiliser pour di ko teg ba noppi gars yi di ko jël di ko teg ci réseaux sociaux yi mu doonoon benn éclaircissement boo xamante ni investigation la 2019 la am boobu ba tey ñi ngi ci doon enquête amuñu ci lu ñu leer tey bañ ci amee lu ñu leer am ci yëpp sukkandiku ci fu ñu waroon sukkandiku yëpp moo tax tey ñi indi leen ko leeral leen ko fii ci journal people de la semaine à la présentation Seydina Tange Dia muy relation triangulaire boo xamante ni dara amu ci muy dara loo xamante ni lu dul fake news